إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk jullit yi ñu ngi yeesal santaat suñu boroom li nga xam ne moo ñu bind moo ñu moom mboolem liy xéewal ci ci ñun ci moom la jóge ñi ngi seede ne kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom amul kenn ku ñu war a doxale suñu diggante ak moom di ko ñaan mu julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne kenn amul droit jàngale jaamu yàlla ku dul moom yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla te it di leen fàttali ne suñu borom yàlla day nim bëggee ñu jaamu ko bañ koo bokkaale dara noonu it la bëggee ñu ànd booloo te bañ a tàqali ko suñu borom mu ne nañ mooy ci diineem ji nga xam ne mooy buum gi dox suñu digganteeg moom ñun ñépp nañ ci bokk mooy te nañ moytu lépp lu ñuy teqale bokk na xéewal yi gën a rëy gu yàlla yi defal ay jaam mu boole leen boole seen seeni xol moo tax mu ne fàttali ko leen ba ngeen nekkee ay noon ma daal di leen di booleel seeni xol ngeen wëlbati ko nekk ay doomi ndey mbokk loolu xéewal yi gën a rëy ca la bokk asbaxtum bi nicmatihi ixwaana jullit ñi xam ne ñoo bokk ndey bokk bàyyi bal lañ bokk moo gën a kawe sax ndey ak bàyyi ca mooy diine jooju nga xam ne moo leen boole suñu boroom subhanahu wa taala ni seen doxalin mi ngi nii di benn doxalin man may seen boroom na ngeen ma jaam boroom bi ngàññi na yéeféer yi ak ñi xamul ne dañu dañ mukk di juyoo lu dul ñu yàlla yërëm loolu muy wone ne mbokk ñi yàlla yërëm du ñu juyoo ndax seen bëgg-bëgg benn la du ñu bëgg lu dul lu yàlla bëgg du ñu juyoo ndax la ñu bokk bañ benn la du ñu bañ lu dul la yàlla bañ mbokk suñu borom yàlla mu ne ñooñu dana leen yërëm loolu muy wane ni ñeneen ñu dul ñoo nekk ñu ci yërmaane mbokk teqalikoo mbugal la teqalikoo texee di la teqalikoo muy jur dàggasante teqalikoo muy jur rayante mooy jur ab noono loolu moo tax ba nañu xam ne it teqalikoo firiwul ne mbooloo jaar fee mbooloo jaar fee waaye teqalikoo mooy teqalikoo ay xol suñu borom yàlla mu ne xoolal naafiqi yeeg ahlul kitaab yi boo leen gisee da ngay jàpp ñoo ànd ndax seen mbooloo yee nañ bokkee waaye seen xol yee dafa safaanoo loolu muy wone ne mbooloo bu ñu àndoon sax ci seeni xol bokkul loole da ngay gis ne ànduñu ca yàlla ana nag mbooloo mu dem ba waxuma seeni xol àndul waaye seeni jëmm sax àndul loolu mbokk fitna la ba tegu ci kaw fitna mbokk lislaam de mi ngi nii di woote ci ne ñun ñépp dañoo war a ànd suñu borom mu ne nekk leen mbooloo moo xam ni da ngeen di taxaw di diglu lu baax da ngeen di taxaw di tere lu bon moytu leen nuroog ahlul kitaab yi nga xam ne ñoom day dem nañ teqalikoo nañu wuute nañu gannaaw ba leen layu leer dikkalee jóge ci seen boroom subhanahu wa taala borom bi daal dañuy avertir daal di ne ngallaawaay yéen jullit ñi xam leen ne seeni doole mooy ngeen ànd bëggante ànd jàppoo. mais fu ngeen teqalikoo rek na ngeen xam ne seen kàttan dana dem fu ngeen teqalikoo rek na ngeen xam ne du ngeen jublu dara réussir ca da ngeen échec fa tafchalu loolu nag moo tax ba mu nekk mbokk lu metti lool ñuy dund li nga xam ne tubaab bi moo ko jële fële indil ñu ko mooy la ñuy tuddee ab démocratie di ko tuddee ay multipartisme ba tey réew mu néew ne Sénégal ñu ne am na lu ëpp ñetti téeméeri parti mbokk ñetti parti rek musiba la woon ñaari parti rek musiba la woon waxumaa ñu ne am nañ ñetti téeméeri parti su ko defee parti yooyu ku nekk yaa nga jóg jàpp ne noo mën a fexee ba nax nit ñi ba jiite rek loolee dagat na ñoom dañ naan moral amul ci politique noo mën a fexee ba say adversaire nga naxasal leen duural leen ba baa ñoom ñu échec dagan na mbokk loolu doxalin la boo xam ne diine ji ngeen gëm tax ngeen bàyyi seen kër daje ci néegu borom bi diine jooju rëkk ne turul loolu abadan suñu yonent salallahu alayhi wa sallam nee na woon julit ñi de seen melokaan dañoo mel ne benn miir boo xam ne birig bu nekk day dooleel moroomu birigam mbokk julit noonu la war a mel lan moo ñuy waroon mbokk ñun ay réew yu néew doole lañu bokk ci pays yi gën a pauvre ci àdduna bi pays yi les moyens avancés ci bloc terrestre bi lan moo ñu waroon mooy ñun doomi Sénégal yépp ñu bokkoon ànd joxe loxo bëggante ñaanalante jàmm jàppalante ngir coono bii ñu nekk ba suñ doom yi kenn bëgg fi fanaan tey dem biir Italie wala Espagne di sang xaji tubaab yi moo leen ko gënal loolee ngir loolu yàlla xecc li ñu ci ay yéen mbokk julit julit day yéene moroomu julitam jàmm ndax day xam ne mooy man may moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na julit ñi def seen misaal dañoo mel ne benn jëmm lu ci metti ñépp yëgandoo ko bu loxoy metti bët dootu nelaw bu tànk dee metti mboolem jëmm ji lépp yëgandoo ko yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na ay julit noonu lañu war a mel na am dutee juuyoo am waaye mbokk juuyoo bu amee it julit ñi dañ koo war a delloo woon ca yàlla ak yonentam loolu lañu yàlla sant nee na lépp loo xam ne juuyoo ngeen ca deel leen xool lan la ca yàlla wax lan la ca yonent yàlla wax masalan tey jii réew mi am nañu ay jafe-jafe yu ñu juuyoo lan ngeen dégg nañu dellu cour CEDEAO ba xam cour CEDEAO noom luñ gisi juyoo bii ñu am ci biir réew mi bokk loolee dëkk boo xam ne dëkkub lislaam lañu gëm ne yàlla mooy seen baroom gëm ne alxuraan mooy seen téere ca ëllëg bu ñu demee du CEDEAO moo leen di àtte ci kanamu yàlla yàlla moo leen di àtte ci maanuteem moo leen di àtte ci téeréem loolee lan moo koy waral mbokk mooy ak ñàkk xam ngan la waay julit sa juuyoo ci delluwaay mooy problème bu am la ñuy jëkk war a daja xool waaw lii fan la ci ngërëmal yàlla féete suñ demee ba xam ne fii la ngërëmal yàlla féete ñun ñépp ñu bokk ne sami'na wa ata'na dégg nañu topp nañu yellul ci benn julit yàlla dogal mbir wala yonent yàlla dogoor mbir ba pare muy am lenn lu muy tànn loolee suñu borom nee na ku ko def yaa ngi ci réer goo xam ne réer gu metti la ay yéen mbokk julit xam leen ne day ñu ngi ci xéewal gu rëy bokk ne xéewal yi gën a màgg yu yàlla yi defal société mooy may leen jàmm jàmm jooju nga xam ne tey Syrie amu ko Irak amu ko Libye amu ko Palestine amu ko Yémen amu ko ila axiri yéen yàlla defal leen jàmm seen doom yaa ngi jàngi di ñëw yéen a ngi dem ci marché yi di ñëw fu leen neex dugg loolu xéewal lu gu rëy nga la waay loolu nañ góorgóorlu sante ci yàlla ñaan yàlla mu sàmmal ñu ko man moytu bépp woote boo xam ne dafay woote jëme ci fitna dafay woote jëme ci tasaarañu loolee mbokk mbir la moo xam ne nii ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel loolu suñu borom nee na li ëpp ci nit ñi la ñuy woote di ca wax benn yiw nekku ca laa xayra fi kathirin min najwaahum xanaa illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna nas xanaa lu dul ñay woote fexe ba nu ñu mën a dimbali nit ñi ñuy woote fexe ba nu ñu mën a jàngale lu baax ñuy woote fexe ba nu ñuy mën a defee ba nit ñëpp nekk ci juboo nekk ci jàmm aw islaahin bayna nas suñu borom nee na kii def lii day te li mu koy def sàkkuwu ci lu dul yàlla gërëm ko daañ ko jox yool boo xam ne ca yool ya gën a màgg ca la bokk ngelaway nañ góorgóorlu jamono bii ñuy dund di jamonoy fitna ku nekk ci ñun na jéem sàmm la miñam ngelaway bu mu wax jëmale ci ay mbokk julitam lenn lu dul loo xame ni nii jàmm la bu yàlla subhanahu wa taala gërëm tey da ngay gis heure bu ñu demee ba yegg ci problème campagne électorale doomu aadama yi fàtte nañ seen diine léegi li ñu xam mooy man parti bi ak parti bi ñefeeti ca parti A jàpp nañ ne luy musiba ci wax ju ñaaw rek ma nga jëm ca parti B waa parti B it naka noonu nga la waay yow jilit doo mel noonu sa loxo bi jëm koo téye sa kemtalal kàttan ci jamono yi fitna sa tànk bi téye ko sa jamono yi kemtalal kàttan ci jamono yi fitna nga la waay booy wax waxal luy jur jàmm sun mag ñi dañ daan wax mag day mat naa bàyyi ci réew lu tax ndax ay ndaw seen der day tàng jur yoo yomb ci ñoom waaye mag mi fi yàgg moom moo leen di delloo gannaaw loolu nag mbokk mu safaanoo lool ñu deme dem ba gis ay mag yoo xam ne nii ñoom ñooy xiirtal nit ñi ci ne jóg leen taal fitna loole inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci musiba yi gën a garaaw yu yàlla nattoo ay xeet loolee nga la xam ne ca la bokk su ko defee nañu delluwaat xoolaat bu baax fan yi nga xam ne kat ay fan la yuy jàll waaye boo xoolee ci histoire adduna bi ana ñaata réew ñoo takk la leen taal mooy ay élection kenn mënu koo nattu ana ñaati junni junni nit ñoo dee lan moo leen rey mooy jamonoy élection loolee kenn xamu ko li mu am de par le monde su ko defee loolee ñun ñëpp ñoo fagaruwaat xool ana ban ah taxawaay la ñuy jéem a taxaw ci loolu te mbokk taxawaay bu nekk mooy ku nekk ci ñun xool sa bopp xool sa bopp ci ne man kat sama warugar mooy lépp loo xam ne nii lu yàqu la damaa war a jóg bokk ci ña koy defar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu waxoon ne kenn ci yéen bu gisee mon na jóg waay sol aw dallam jëfte ba mbon ba deñ su jàppee ne man kat sama kattan yëggul ci jëf mu deñ ngal la waay lu mu man ci lu baax na ko wax ba mbon moomee doon mbon boo xam ne nii mbon la buy fay su nee na nag loolee lépp da ngay gis ne kat yow amoo kattan ci def ci loolee dara ngal la waay la nga xam ne moo ca des mooy nankan naqarlu ci sa biir xol te naqarlu ci sa biir xol boobee bokk na ca la nga xamee ni nii moom mooy ñaan ñaan googee it yow jullit da ngay gëm ñi ngi jëm ci ay élection waaye mbokk nañu xam ne kiy élire mooy suñu borom subhanahu wa taala kiy fal ku ko neex cim réewam mooy suñu borom jaam yi dañuy sabablu rek waaye yàlla subhanahu wa taala moom kese mooy tànn ku ko neex qul illahuma malika al mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha loolu la jurit war a gëm nguur gi nguur gi yàlla la yàllaa ko jox ku mu neex moo koy nangu ci ki ka neex tey jii da ngay gis ne cinq ans avant président bi fi nekk di falu kan moo mënoon imaginer ne dana mas a falu kenn mësu koo imaginer kan mooy nar a nekk président bii ñëw ndax kenn xam na ko kenn xamu ko ku dul yàlla kooku bu fi jógee kan moo koy wuutoo ndax xam nañ ko kenn xamu ko ku dul yàlla kon yow julit sabab lul sabab bu rafet waaye xamal ne du sa xeex du sa xuloo du sa yàq du sa toj mooy dindi la nga xam ne mooy dogalu borom ba subhanahu wa taala nga la way yéen ndaw ñi maa ngi leen di woo maa ngi leen di woo ngeen xalaat ci seen avenir xalaat leen luy defar seenum réew ñépp ñi leen di woo ci fitna politiciens yi leen di foye musul am benn événement ba nga dégg ñu ne am na doomu président wala doomu ancien président ba bokk ci ñu jàpp tëj leen ci kaso yi musul am benn événement ba nga dégg ñu ne am na doomu président wala doomu ministre boo xam ne bokk na ci ñi ñi rey wala ci ñu ñu blessé seen doom yaa nga ca bitim réew mi ngi noonu ñu leen di fayal ci loo xam ne lu ëpp sax sunu xaalisu réew la ñu leen cay fayal ñu nekk seen sécurité seen doom yi ñi ngi nekk ci seen pale yi amma doom yi baadoolo yi doom yi quartier périphérique yi la ñuy jël ne leen nag yéen jóg leen manifeste leen jóg leen accompagne ñu drainer des foules yoo xam ne nii day nekk des centaines de mille ñoo xam ne xamuñu lañ leen woo jëme ci lu mu doon ngal la waaye bu leen nangu loolu bu leen nangu loolu dañ leen di nax képp kenn ci yéen na téye boppam jiital ay xalaatam ba ñu jiital la nga xam ne mooy ay passion ngeen xam ne luy mi seenum réew la ñii kay xëccoo lañu dem bàyyi leen fi su ko defee xool leen yéen nan ngeen di jàppoo nan ngeen di ànde bépp woote bu jëm ci fitna bañ leen ko mbokk fitna bu tàkkee kenn xamul fu muy yem suñu borom mu ne moytu leen fitna ndax kat fitna bu tàkkee laa tusibanna lazina zalamu minkum xassa kenn xamul fu muy yem doomu aadama mën nga koo taal mais xamoo fan lay fay lii lépp mbokk ay mbir la yoo xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala dañ ci woo jëme xéewal gi nga xam ne dañ ko nekk su dee na ñun ñëpp dellu nañu ci suñu borom subhanahu wa taala santaat ay xéewalam nangoo jàppalente nangoo yéenalente jàmm borom bi yàlla day mooy ka nga xam ne mooy xéewal ay jaamam mooy indi jàmmam Sénégal kañ la nekkoon Sénégal Sénégal kañ la amoon indépendance n'est-ce pas que ci dix ans yi mujj lañ naan gis nañ fi pétrole boo xamee ni nii ah mi ngi fi nekk pétrole bu bari loo xam ne buñ ko exploité mën na dekkal suñu réew gars yi pétrole boobu ndax banque mondiale ñoo ko fi indi ndax France wala Angleterre moo ko fi indi ndax jógewul ci suñu borom ah kay def nañ fi des découverte de gaz kan moo indi gaz boobee def nañ fi ay découverte yu bari ci ay keenu or kan moo indi loolu ngan la way kon ñu xam ne loolu ci suñu borom la jógee suñu bëggee développement suñu bëggee avancé maadaama ay julit lañu dañuy delluwaat ci li neex yàlla subhanahu wa taala nga la way sa loxo yi bu ko yëkkati di jëm ci dara sa tànk bu ko yëkkati di jëm ci dara lu dul nga jëkk a laaj sa bopp ma ndax man lii ma nar a jëm ngërëmal yàlla mi ngi ci am de su ci ngërëmal yàlla nekkee demal échec amatu ca loolee mi ngi noonu su ko defee bu dee ngërëmal yàlla nekku ca nag gañaay amatu ca ndawal julit yaay ki nga xam ne yaay jóg jëm ci réussite ñi fekkee tafsir bi passé léegi gis suñu borom subhanahu wa taala di wax yonent bi ak sahabaam tontu leen yéeféer yi hal tarabbasuuna bina illa ihda alxusnayayni ndax xaaru leen ci ñun lu dul benn ci mbineel yi te mooy képp koo xam ne jóg nga la ngay wax yàllaa tax la ngay jëf yàllaa tax xoomu kuy perte de waayu pertu fokk yàlla subhanahu wa taala fay la ca la nga xam ne moo aju ci xéewalu àdduna boo ko amul ci lii it da nga ko am ci leneen loolee mbokk la ndawal julit war a gànnaayoo su ko defee ñu ñaan ngiree yàlla subhanahu wa taala indiwaat jàmm ak xéewal bari na ay xutba yu bari ay imam di ko tëjee kaddu ga suñu borom yàlla di wax te mooy inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ay yéen nit ñi xam leen yàlla day li muy digle mooy maandute al adl mooy ku nekk nañ ko jox ak xam al al adl mooy nga maandu ci wax dëgg même bu dee da ngay condamné say waajur wala ngay condamné sa bopp wala ihsaan mooy rafetal ci lu mu mën a doon julit fexeel ba say wax rafet fexeel ba say jëf rafet fexeel ba say jëflante rafet suñu borom it sant na nañuy joxe la nga xam ne mooy suñuy jege ñaale waaye borom bi daal di cay teg wa yanha anil fahsha yàllaa ngi tere lépp loo xam ne ay ñaawteef la wal munkar lépp loo xam ne nii lu ñu sib lu bon la wal baghi ak lépp loo xam ne day jur ak ak noonoo day jur agression loolee xam leen ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala tere na leen ko mu ne nag lii lépp maa ngi leen koy xamal ngiree ngeen doon ñoo xam ne nii dañuy doon ñu fàttaliku ngalla way mbokk julit lii mooy la nga xame ne nii ab tënk la bu ñu leen tënkal ci lii nga xam ne moom la ñuy dund tey di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla subhanahu wa taala def ci jàmm ak xiiwal yal nañu yàlla musal ci élection ak campagne yoo xam ne nii day yokk fitna yi nekk ci suñu biir réew képp koo xam ne da ngaa ñëw ci réew mi nar cee indi fitna yal na yàlla delloo fitna bi yemale ko ci yow kese yal na yàlla sàmmal ñu suñu ndaw ñi ci suñu ndaw ñi yal na yàlla aaral leen la nga xam ne mooy seen diine aaral leen la nga xam ne mooy seen ngor yal na yàlla soxtaliwaat suñu réew yal na yàlla boolewaat la nga xam ne mooy suñu xol élection yaa ngi ñëw suñu borom dong moo xam ka gën ci ñun ki gën ci ñun kenn ci ñun xamu ko waa bani israil ña nga ne dajeeg benn yonent gannaaw Muusa na ko tànnal ñu koy jiite réew mi mu ne yàlla tànn na Taalut ñu ne ko noono Taalut ni mu nekk buur wa nahnu ahaqu bil mulki minhu ñun ñii ñoo ko gën a yey nguur kon bari na koy joxañ baaraam naan kii moo gën a yeg ñu fal ko lan nga ci xam yàlla rek mooy ki xam su ko defee sa njort nga mën a am ak la nga xam ne mooy say ñaan waaye dellul ci yàlla yàlla mii tànn buur bu baax yàlla na yàlla tànnal ñu ko gën ci Sénégal yàlla nañu yàlla tànnal ko gën ci suñu diine yàlla nañu yàlla tànnal ko gën ci ñun suñu tey ëllëg yàlla na yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin والحمد لله رب العالمين